DG mu am lu bees ci Sénégal yi qui s'attendait à ce que le premier Ousmane Sonko. mais nous mais mais Maodo ce que je propose c'est qu'on supprime la déclaration de politique générale ça à quoi. mais pourtant am na njëriñ. ça nous permet de savoir fan lañ jëm. je dire échange la boo xam ne tax Sénégalais yi xam un mais je veux dire lan discours de Idrissa Seck bi mu defoon en tant que premier tu te souviens. oui en 2000 la xam 2002 c' est des belles phrases. mais des discours alors que li ñu soxla c' sur le terrain. mobiliser l' mobiliser la presse mobiliser le Sénégal pendant 24 heures autour d' déclaration de politique générale ñuy xarbante ñi nekk fii c' est l' opposition majorité yoretoo majorité alors que les priorités sont ailleurs man dama jàpp ne l' mm-hmm. de supprimer micro je ne suis même pas en phase avec cet argument là hmm. parce qu'ils étaient là quand le règlement intérieur quand Amadou va à l'Assemblée ils devaient faire c'est-à-dire là d'accord mu ci les gens doivent être conséquents aussi li ma gëm mooy ils auraient dû prendre de politique générale ça n'a pas de sens day tardé nit un premier ministre tout le gouvernement toute la république mobilisée pendant vingt quatre heures au niveau de l' assemblée ce temps les urgences yi yi war dem terrain war a baykat yaa ngi xaar hivernage baa ngi ñëw inondation baa ngi ñëw école baa ngi fii les travailleurs de des collectivités rurales mu ngi fii mais ces problèmes là c'est voilà c'est dur aussi les mais justement les gens en, en les extraits les états a jël tu tu fais un discours mais sénégalais kenn tax ko bind discours. Mhm. nga taxaw tax bind naa lii benn laa lii mais c'est la pratique ñun li ñu xaar mooy on les attend à à vraiment dem au fin et puis di saluer comme tu l'as dit tout à l'heure bi ñuy commencer cette rigueur bi ñu am dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Mhm. cette rigueur bi ñu am pour soulager les sénégalais képp koo xam ne bépp secteur bu mënti doon nga jël en otage les sénégalais de la décision